rencontre pour Nous c'est la première fois nous avons euh, ñu la chance avec la FIFA le ministère de sport, le ministère de l'éducation nationale d'organiser le championnat bu solo et que nous avons ñaari vainqueurs. Nous sommes champion Nous avons du championnat scolaire ci Sénégal Moi les garçons de Kédougou et également les jeunes filles Nous avons été ñoom ci championnat bu bess bo xamné musul am ren la commencé am ñom ak yenen rencontre rew falé ci Kinshasa donc ñew nañ fi tay nak pour jox donc le drapeau pour que ñu dem représenter le Sénégal dignement comme l'Ion yi niñ ko aussi bi ñu ci Cameroun. donc ñu ngi remercier la FIFA yoo xamné ñom ak ñun ñu and ci convention bobu convention bobu taxna ba li yépp am de remercier encore la fédération sénégalaise de football koo xam directeur technique mu ngi fii ñoom ñoo jël en charge lépp en tout cas si voyage bi si organisation bi nu mu féliciter également ñun suñu boo xam ne kooku mooy suñu directeur monsieur Dia mon moo yor division bi moom moo organiser loolu moom ak inspecteur d'académie yi di féliciter nag élèves yoo xam ne ñoo participer si 16 académies yi ren lañ ko commencé ñii en tout cas ni ma leen gisee si discipline si seen organisation muna am njort ni que effectivement suñu demee dinañu représenter dignement le Sénégal si le sport nak lu am solo la parce que sport dina tax ne que li wax ne ñun le retour aux valeurs les valeurs de citoyenneté moy encore euh, moy leur détermination ñom ñep ñu mëna and moy l'équipe donc lool mun nañ ko liggéey si biir équipe bi équipe de football ou bien sport en tout cas nous montons demain, dina tax ne que wax en tout cas patriotisme dina commencé l'union wax également ay valeur Nous avons ne ñoom ñoo nar a ànd mu former équipe tay, Et def la sax ñu dem ba au niveau de l'équipe nationale donc fii lañ koy commencé en tout cas di wax ne daal que ñun ministère éducation nationale ak ministère de sport ak yeneen ministères yi comme président de la république nous na nañu installé la fédération bu mag bu am solo te dem na ba décret bi décret boobu signé nañ ko foo si wàllu au niveau scolaire ak universitaire mun naa wax ne que en tout cas président de la république jël na décision boobu man nag li ma leen di ñaal que ñoom ñu demee ñoom xale yi nañu xam ne Sénégal la ñu représenté drapeau Sénégal lañ fa yóbbu comme ñi seen mag yi defee ñoom si suñ fa demee ay xale ñoo xam ne seen âge ñoom ñoo fa nekk mais nañu représenté dignement le Sénégal suñu demee ba nekk si terrain bi comme li président doon wax rek dem leen ba jeex ngeen dimbal ñu indil ñu coupe bi jërëjëf